moom laa dégg dama jékki-jékki ñu yónnee ba benn vidéo ñuy wax ne de d'assassinat bu ñu def ci xalifa euh, rappeur dafa am ñu la bëggoon a rey. waaw parce que xam nga loolu noonu maa ngi siy alerté bërki démb muy vendredi. waaw hmm. ah, vendredi yàlla def na jot nañ ay renseignements yu bëri. waaw te xamat ñun yàlla dafa def chaque fois dañuy jot ay renseignements comprendre na. Hmm. Hmm. waaw dañuy jot maanaam ay info mais yu si bëri yenn saa yi gars yi tam ñu lay def signe pour maanaam xama di la intimider wala bëgg nga tiit wala nga bëgg nga ragal bëgg maanaam nga dellu ginnaaw xam lu ma laa mhm. mais ñoom dañ xamul nu mu demee xaa ñuy fàtte démb yow mhm. démb ga amal la su daaw daaw daaw géej ah. Mhm. jamono Macky Sall moo gënoon doy war fuuf. Mhm. lu dëgg. Mhm. te ñun même daaw si heure bii bi Sénégal di metti ñëpp a jaaxle ñun dañ doon génn gaamal la sumuwaay bi ñuy tere ay wax Ousmane Sonko si palaato yi. ak tere wax Pastef si palaato yi boo waxee Pastef sax ñu àllaa non ex Pastef di la waaxu. est-ce ay dégg ñun boobu ñu ngi doon wax dem leen internet ba pare gaan di yuuxu fépp libéré Ousmane Sonko di dénoncer injustice. ñu tegal ñu gaan man la waay xoola xaalis bu dul jeex am ñu am ay opportunité yu dul jeex temps yëpp maa ngi koy wax si média bi. Mhm. gisoo ko ko weddi de te kenn si ñoom du ko weddi am na ay opportunité sax yoo xam ni tuddaguma ko. ah bon voilà waaw na kenn jéem a weddi rek est-ce dégg du ñu mës a weddi déggu ma la. mais ñu dem ba jamono ji ñu ne yu dul jeex maanaam mhm. tey si tey ñun ñu am ko xam nga ànd ak suñu dignité ak suñu ngor ànd ak dëgg xam kon tey say gaan man la su ma waay mënoo ñu xoxatal munoo ñu tiital munoo ñun boo ñu tegaloon fetal gaan suñu bopp sax laa lay wax nii ah doo ñu tere wax bu ñu naree wax dëgg ah ak bu ñu fas yéenee wax dëgg incha allah rabi te yàlla rek a tax. kan moo la bëgg rek am ku la bëgg rek waaw kan la parce que xam nga yàlla def na vendredi ci saa si noonu mboo mbooxu mënoo ko jëw waxtaan nañ seex ñi ngi si war a waxtaanal. Mhm. muy waa Digax waa section recherche force de sécurité yi ñëpp maa leen di ziar est-ce que mhm. waaw te tamit maanaam. si suñu ay renseignement ñun du ñu état de. voilà du ñu état quoi. Mhm. mais lu ñu bëgg xam moom saay macha allah alhamdulilah même jamono Macky Sall sax fu ñu fuyee gaamal la sumu yàlla ji gaan xoolal na jaaree fu bëri leeralal ñu ba mu leer nañ. est-ce que ay dégg. Mhm. ah kon tey si tey nax man du ma fen askan bi te du ma tricher man du ma fen du ma sosal kenn dëgg laay wax ci yàlla rek a tax. Mhm. xama boobu si information yi ma jotoon ah maa ngi doon wax ne maanaam amoon na ñaari soxna yu si nekk. comprendre na mhm. ñaari soxna yoo xamante ne nii ñun dem nañ saawaay ba yàlla ji xamal ñu dëgg bi te bu ñu xamee dëgg bi moom saawaay foog ñu wax ak askan bi suñu suñu ay fami wax suñu ay mboqax suñu ay nitax sénégalais ñëpp a jaaxle booy di ñu ñaanal booy fu ne wooyee nañ ñu fa booy ñii di ñu ñaanal di ñu jox ay dog ñii di ñu ñaanal jaan di ñu motiver ñii ba bàyyi dem nañ ba waa parquet sax laa lay wax nii mais respect autorité judiciaire yi bàyyi di ñu woo baay xam nga di ñuy jox ay technique ak yeneen ak yeneen. ba tey tentative moo tax sénégalais yi mais respect amuñu seen fay. Hmm. sénégalais yi ñu bëgg dëgg nañ nit yu baax yaa ngi baax ba léegi nit yu dëggu yaa ngi dëggu ba léegi est-ce yaa ngi dégg mhm. te sénégalais yi dañ jugee fu metti xeex injustice teg fi jub-jubal jubanti kon yaakaar boobu noonu yàlla bu mës a tas ñun si jub-jubal jubanti kese ñuy dox léegi yow si d'assassinat boobu noonu ñaari soxna yi ma lay wax kenn ki mooy jamono yi passé boo leen seetloo terrain bi nga xamante ni nii saawaay moom mooy terrain wu suñu yaay booy ndey assu aaj ak jëkkëram mbay caam yaa ngi dégg dey mhm. terrain boobu noonu saawaay bi nekk si corniche bi xam nga temps yëpp ñu ngi si doon alerté mhm. te newoon naa leen cour suprême daaw 2023 joxoon na leen dëgg ba wax gaan moom waykat bu wayadi bi gaan la plus nulle des chanteuses yéen ñëpp xam ngeen ko est-ce yaa dégg mhm. waaw tey si tey gaan yoon newoon na ko mu juge foofu noonu mais dafa jaar ci suuf falsifié faux usage de faux xam nga même ki mu si àndal noonu sax gaan xoola gars yi xam nañ ko bu baax mu falsifier papier yi pour maanaam toog foofu noonu est-ce dégg mhm. moom maa moom tey si tey heure bi ma wax ak yow yoon bu defoon yoon lek si kaso bi la koy fekk est-ce que yaa dégg te moom dafa dëgër bopp nax waa te jaam la parce que moom magam kenn du ko présenté yéen a ma gën a xam waykat bu mag bi est-ce dégg mhm. waaw waykat bu mag bi moom tey si tey wóolëre nday asu aj la nday asu aj da ko bëgg jàppee ko ni frère ñoom ñaar ñu bëggante ñoom loolu ñun su ay xoola ñun balaay sax suñu juddu la ñoom depuis bu ñuy tuut tànk ñoo màggandoor mhm. ñu bëggante yàlla boole leen mais waykat bi saa ay xoola képp ko nga xam-xam ni gaama la su waay wax na ko dëgg wax na ko dëgg nee na ko jugeel foofu mais moom si boppam moo dëgër bopp xaw dafa dof xaw ma lu ko dal ba pare bëgg ay affaire de wuyu ay affaire de jaay bandi yow yow yow da nga repp quoi yow yow nga ne yow yow man ngay jéem a reylu yow fii si mim réew man ngeen di jéem a reylu yéen yéen xamoo leen sax nu mu demee est-ce que ay dégg tey si tey gars mooy li ma la wax may la ah ay mboqam yëpp nee nañ ko xoola dellool suufu jàmbur parce que ñëpp xam nañ ni newul si dëgg comprendre na waaw mais moom boo leen ko gisee mu langaloon ko Amadou Ba xam lu mu bëggoon mhm. du woon ay affaire de intérêt Sénégal ay intérêt boppam la parce que dafa buggoon gi amal la sum waaye Amadou Ba gagné élection yi pour def le tout pour foofu noonu mu sàcc ko am si titre foncé est-ce que loolu kese la mais tey si tey xoolal kim si àndal ndax moo ma gën a metti booy. kim si àndal ki ko siy jàppale. kan waaw koo xamante ni junj day na borom xel gu waa patriote yi lay mubboo instant yii foo leen ko gis nax ah gars yi dañ naan patriote la waa Pastef la te loolu mu si gën a naqadi booy xoola maam. bukki a a bëy wu sangoo deru bëy la comprendre na hmm. xam ngeen ko benn animatrice boo xamante ni nii taxawaalu na si télé yi taxawaalu na TFM taxawaalu na tamit 2STV day taxawaalu lekk gis ngeen ko temps yi nii sax gars yi mi ngi muuru xam moom moo ñëw parce que ñoom ñëpp ay bandi nañ ah waaw ñoom naan sàngara nañ xam xama nga di wër si hôtel yi di caaxaan xama moom mi ma lay wax nii saa waay hmm. toppoon na maanaam woykat bi esam loo wax nii topp ko gaama la sum waay sonal ko te waykat bi du ko mus a tax parce que waykat boobu noonu saa waay xoola lu mu cóol ba cóol ba cóol am na classe est-ce que dégg. te xam na lu baax te bëgg na lu baax comprendre na. Mhm. voilà tey say nu mu munti mën gaan du dug ngaaxa tamit quoi booy mét naa la est ce que ni mm-hmm. bu demoon ba yeew dina yeew nante est la que lu ma lay ni ak ku am classe ni moom non damay wax dëgg bi te yàlla tax de mm-hmm. kooku maam looloo ma si gën a metti booy ngay mubboo booy Pastef booy yaa bon yaa yées doo nitu dara waaye sa yi nga nekkee noonu mafia yi ngay teg noonu si ndey asu aaj di dem di def ay bagaa sax booy boo yéen da ngeen xamul luy renseignement quoi ñun bu ñu bëggee xam saawaay li ngeen ndekkee añee reeree saawaay ba si détail yu gën a ndaw lépp nañuy xam dangeen xamul nu mu demee rek est-ce ay dégg. Mhm. yi muy def nday asu aaj yooyu noonu yëpp. saa xam nañ ko te tey say xoolal nday asu aaj dara sax talul. voilà kooku li jëntiwu la sax léegi léegi léegi moom ki ma lay ki ma lay wax noonu animatrice boobu noonu. Mhm. parce que ñëwoon na fi ay jamono ñëw mu boo Pastef bi di sóob xam nga waaw. ba gaa yëpp gëm ni Gama la sum waay kii patriote la. Mhm. yooyu yëpp ay sóob la la preuve Gama la sum demoon na fi benn jamono fogoon ni gaan waykat bi dina ko protéger xam nga. Mhm. waaw teewoon nañ ko fi xaw ma garde à vue xaw ma lan mu tiit benn instant dellu ginnaaw kenn déggaatu ko. Mhm. instant yi gaan xam boo koy seetlu sax mi ngi muur di jéem a jaay yiw fekk yiwul. waaw parce que du jigéen bu baax du nit ku baax tey si tey moom moo dem si bànn bi ma lay wax nii si kooku ah ki ma lay wax nii seeru seeru waykat bi gëmloo ko ne ko maanaam nguur gu bees gi man maa ngi si man naa la lijjantil ba nga ba nga toog fii. Mhm. est-ce que si mhm. mu nekk association malfaiteur moo tax li ma lay digal yow mii di mu boo Pastef li ma lay digal waaw li ma lay digal ñun ñoo la gën a bokk Pastef téeméeri junni yoon te amuñu sax carte de membre Pastef te ñoo la gën a saawaay xola bokk si xeex bi téeméeri junni yoon gën la saay saf si bagage fuuf. waaw te ñun dëgg nañuy dund. ñun tey si tey du ma la nëbëree. su Assou ma demoon ba si biir xam ni kii newul si dëgg barki alxuraanul karim saa xola ba abandonné combat bi mais dafa xam ni kii mi ngi si dëgg. dala dafa nekk si dëgg. mais dala woo wala est-ce que dala dala approché. waaw parce que yaay booy la. suñu yaay booy la déggoo lu ma la ku dem ba maîtriser dossier bi xam lépp lu si nekk kañ gayaan wala. Mhm. loolu tamit. Mhm. xam du question. Mhm. ma dama ni la affaire waa maintenant la ñëkk metti parce que temps yii demoon naa si télé Sen TV di communiquer. Mhm. est-ce yaa ngi dégg ax même TikTok beeg réseau yi maa ngi siy communiquer mais askanu maintenant la ñëkk naqadi parce que xam lu tax kooku jigéen ki ma lay wax nii dafa reew dafa xamadi te wuyu bi muy wuyu wuyu bi muy jaay nag ah. Hmm. si man lay jaaree quoi yow yaa ngi doog a dugg booy di jël booy saay booy xoola bu booy booy di joxe pour ñu faat ma man. man quoi man. mais léegi qu'est-ce qui qu'est-ce dafa dof yow kii dafa dof ci wérul. yow dañ la coach wala lan la. dama ni la dama jot ay information ñoom seen yooyu ñuy def ñoom xamuñu sax ñoom xamuñu sax maanaam. xamuñu sax maanaam ni ñuy géemee quoi xaajuñu ba koy xam. tey say am na si yoo xam ne ay renseignements yu bëri yoo xamante nii du ma ko wax nii publiquement. comprendre na. voilà parce que maanaam am na si yoo xamante nii. ñu si war a liggéey ñëw siy liggéey comme maanaam suñuy force de sécurité ak autorité judiciaire yi comprendre pare nga daal yow yenn prévenu yi nga ama la su ma waa incha allah rabbi mhm. ñoom seen ay loxo lay nekk quoi comprendre voilà mais dama la bëgg xamal ne maanaam ah ñun booy jëm pexe si ñun lekk na doon jàmm ak salaam boopul moo ko mën a koo jëw instant xam nañ lépp nu mu demee ñoom seen seen la yooyu ñuy def mhm. ba ba ki ma lay wax nii gaan ñëw xama naan naan naan ah, naan day dala xelam naan kaa naa la si kii parce que nguur gu bees bi nii tamit saawaay malheureusement gaan ah ay ay buruxlu yu bëri sa ay am na si ah. Ah ay buruxlu yu bëri waaw ay buruxlu yu bëri am na loolu yàgg nañ si alerte mhm. temps passé émission ma def Sénégal 7 genre genre yi kese laa doon alerté mais malheureusement gaan am na si ay ay ay ay yu bëri yoo xam ni jàll nañ si buruxlu yooyu noon moom loolu la ko doon gëmloo ne ko maanaam yow instant bii nii mhm. ah, ñun maam nañ ma effacé man quoi suñ ma effacé après ñu xool nu ñuy defar kee xam nga ma la mhm. ay bagage xam-xam yu ñuul affaire yooyu noonu xam nga moom mu lijjantil ko ay mafia. Mhm. ñu am fu ñu jaar pour bu ko defee kayit boobu noonu xam nga moom mu toogaat fa. mais yaay nax sa bopp de foofu moom moo ko te par la force dañ fay jugee ni askanu maintenant yëpp saa waay ñëpp kontaan askanu Sénégal ba si États-Unis Washington waaw parce que. Mhm. daa su aj ma lay wax nii. am na nationalité américaine citoyen américaine la asi ay dégg mhm. ba pare di liggéey ay projet yu rëy yoo xamante yi nii Washington ñi ngi ko bëgg indi incha allah rabbi fii biir Dakar. est ce ay dégg. mais est ce que ah, ah, ah, est ce que du Khalifa da ngay làq doom dóor doom. làq non non du loolu parce que amu tax. Mhm. égoïsme opportunisme bi nga xamante ne nii ak réewaande bi nga xamante ne nii. Mhm. parce que kooku poson la si askan wi. kooku noonu poson la si askan wi baaxul santul yàlla yoo xam buggoo sax say mboq seen mboq yi bërki démb ñu ngi xew wala boog booy tey see la famille est sacrée quoi mboxu gaan alalu yàlla la est-ce que yaa ngi dégg. Mhm. kooku du nit ku baax baaxul santu lu yàlla. te mhm. nankatu sangare la ku yéesu la nax yàlla nattu na la ba yow sama 18 ngay dugg ngay nag may effacé. wala nga may tegal ay mafia yow xaajoo bay xam nu mu demee da nga dem laaj Bamba Fall ah laaj Barthélemy Diaz ñooñu ñëpp sax xoola tey say bu jeexee jeex na est-ce que yaa dégg. Mhm. mais dama la bëgg xamal ne gaan kii ngaaxa xamul nu mu demee. mi ngi doog a xoolal mi ngi doog a dugg nag si problème tey say moom kooku noonu di mu boo patriote yi. Mhm. moom instant bi benn chance kese moo ko dese mooy xamal lan mu bàyyi ndey asuwaaj xam ni du moromam ba pare gaan mu jéem a xool moom yoonu boppam quoi te instant gën na yàqal boppam parce que. bu fekkoon ay poste yii nii lay yaakaar rek affaire yooyu noonu ah. Mhm. ñun gëm nañ ni suñu njiit yi nii suñu autorités yi ñu jub nañ te du ñu fal ñoo xamante dañuy dox si ay lobby wala ay affaire de mafia wala ay affaire de teg deal wala ay mhm. affaire de jéem a rey jeune sénégalais. booy man jeune sénégalais booy nga nit ñi ah, ah ñëwee nag may jéem a faatlu booy ah. kenn du la rey moom tey see mooy li ma dañoo yor sama bakkan nee naa leen bakkan boo leen ko moomee jël leen. déet waay bi nga ko moomee nañ koo jël ñëpp nax laa général ku dul yàlla ji moomul baqen bi. est ce que yàlla kese moom baqen ji moo a may la moom benn chance am mooy xamalan na dellu ginnaaw maanaam génn si mafia yi nii xam nga ah na génn si mafia yi dem lijjanti boppam kii moom saa waay xoola gis nga bu la yàlla nattoo ngay jaay dëgër bopp naan na ngay continuer kii association malfaiteur taxaw na. te man mii léegi laa lay wax nii ñoom seen pexe yooyu noonu léegi laa lay wax à travers yenn preuve yi laa lay wax association taxaw na. ñooñu booy gaa ma la sum na askan bi gën a dalal seen xel gaa nañ dalal seen xel parce que mu tax kilifa yu bëri ak famille bi gaa ma la sum waay nante yi mafia yi gaa yi yëpp booy booy koñ yëpp laa lay wax nii gaa yi presque ñëpp a ma woo booy ñëpp ma def siñ si whatsapp bi nga ma noo gaa dof lii du si dal. est-ce que dégg mhm. parce gaa yi kaa mox bi muy metti démb ñoo ko xeexandoor si mbedd bi de. Mhm. ñoo ko yàgg dund fii si taan bi. ñu juddoo fi màggee fi yaroo fi dëkk koñ bu ne jaar fu ne def fi lu ne est-ce que yaay affaire bi dafa naqadi gaa man la su waay gaa yu bëri gaa yaan comprendre na mhm. moo nañ dalal seen xel ñaar ñi si nekkoon man du ma tuuma du ma sosal kenn mhm. waaw bu fekkoon suñuy renseignement yu leer nañ mhm. bu fekkoon Wally Seck la wala kenee ak keneen dama koy wax mais du ñoom du ñoom est-ce ay dégg. Mhm. du ñoom quoi ñaar ñi ma lay wax nii. mais ñaari coin yi nii mais ñi mu doon tamit ñemewoo tudd seen tur ah. waaw yow mais yow xam nga. xam nga ah, la plus nulle des chanteuses. Ah. ki xamante ni gars ma la sum waaye bëggul sax deretam. Ah. ki gën a bon nga amal la sum waay dem gaa ne booy yow oh, booy saa yi junj doy na borom xel. Eh. te terrain boobu noonu temps yëpp maa ngi siy communiqué ñëpp xam nañ kan la. beneen coin bi kañ xëy na moom moom mooy xaw a téy maanaam xelu sénégalais yi. Hmm. mais tamit junj doy na borom xel animatrice bi nga xam ne moo doon taxawaalu TFM. Hmm. Eh? balaa may dee muy jéem a jaay ay neex baa tax di sóob. E nit booy ku bon la ku yées la booy man dafa ma berti quoi. ayca ñu dem ci dafa ma berti booy dafa ma berti. ñu dem ci dama am déception quoi te pourtant booy noonu laa ko woon booy barki yàlla booy ah. mais kon booy booy booy naka booy booy nit a lëndëm. booy lii moo tax ñu naan nit a lëndëm booy kii moo bon yow yaa bon waaye di ngeen xam ni booy maa leen gën a wag a téeméeri junni yoon. te booy yéen c'est-à-dire yéen yéen li ngeen nekk jigéen sax moo ma jaaxal quoi non booy li ñu nekk jigéen moo ma jaaxal de mais gis nga bu ñu mhm. seen gàlle lay dem déggoo ma la xanaa di bu ñu nekkoon góor nii laa lay wax nii. Mm. seen gàllee na ñuy dem taxaw seen buntu gaale yi gaa ma la sum ñuy génn ñuy gis ñu leen di gis. est ay dégg. yow ñii xaay ñu bay dof yéen xaar ngeen dof yéen. mën oh, nax dina ma nax quoi moo tax tey see nañu xam ni ñoom la ñoom ñaar ñoo ñooñu noonu. Uh-huh. ñoo si nekk ak beneen xale bu jigéen. yow beneen xale bu jigéen bi yi nga def yëpp xam na ñu demee tamit. comprendre na waaw mhm. ah, mais kooku maam booy xool ñoom ñoo ko sant rek sant ko nii ay affaire comprendre na yooyu yëpp xam nañ ko te renseignement yëpp dina dem fu mu war a dem muy si autorité suñuy force de sécurité ba incha allah rabi suñuy autorité judiciaire incha allah rabi. ay xam nga ñi ay dëmm nañ mais tey si tey gaan gis nga foofu noonu place boobu noonu. Mhm. projet américain la boo xamante ni nii. nda asuwaaj koo xam ni gaan moo jëkkëram ñi ngi am foofu depuis 96. ah jamono moom jamono ah Mamadou Diop. Mhm. ah jamono Modou Diop bu nga xamante ni nii saa yi yow heure wii nii gaan foofu noonu projet américain la boo xamante ni nii pour jeunesse su Medina la ah parce que centre commercial lañ ko gars bugg def. def ko projet boo xamante ni maam jeune Medina yi ñoo fay ñëw di fa liggéeyee te bés bu nekk saawaay day am nombre si askanu Medina bu ñuy tànn boo xamante ni buffet gratuit lay nekk pour ñoom est-ce que waaw ñooy koo xamante ni day asu aj booy suñu ñaata grand la jël yóbbu leen États-Unis suñu suñu ñaata euh, ñaata ñaata ñaata suñu ay jeunes ma daaneel ñaata ay jeunes wu Medina la jàppale dimbali leen moom ah we moox waykat bu mag bi ñu nekk ay wóllëree kenn xajul seen diggante man duma sax jéem a dugg seen diggante est-ce na parce que maam boo xool bokkuñu ah, boo xool ñoo bokk ndeex baay ñoom ñaar est-ce que dégg ñoom seen famille ñoom ñëpp laa lay wax nii ak ndey asu aaj benn nañ comprendre na mhm. waaw yow tey say nga nekk baadoola nekk jaam ah naan naan sa ay da jaay doole kan ngay jaay doole koo xamante ni presque sa mboq la waaw waaw àndandoo bu yàgg dem ba nekk famille dafa ñaaw quoi xam nga tey ma man maa ngi si doon communiquer mais mhm. passé woon naa yooyu si man mooy loolu ba naka teewoo gars man lu ma siy noppi yëpp mhm. naka ñoom ñoom ñoom ñu ngi seen ay pexe pour effacer ma ñàkk jom ñoom pour jéem a defaat ay pexe forcé ne dañuy téye fa par force yéen a ngi nax seen bopp de. ah léegi ngeen jugee fa te incha rabbi xoola man yéenewu kenn kaso mais fii ku fi def gaama la sum waay lu bon li nga ji rek ngay góob. Mhm. est-ce que léegi nag léegi nag foofu na fi may tëjee. Mhm. si wàllu woowu fi may tëjee ah mooy que ni maanaam ah ah. mu ah, ah, kooku di bi. waaw mhm. ah, loolu noonu di muboo patriote yi. mais na bàyyi na bàyyi maanaam na bàyyi maanaam. naan sàngara te na nekk nit parce que xamul tax. Mhm. parce que xamul tax yow moom bu muusoon tuuti sax. Mhm. dina xam ni kooku noonu maanaam day asu aaj nañ ko ndayale xam ni ñii maanaam lu mu cóol ba cóol ba cóol ba cóol. xëy na kaso sax munoon na taxaw moom mu ñëw jaar ci suuf xama ne ko non garaawul comme delloo nekk ma sama yëf lekk mun na si def le tout pour moom du tëdd kaso comprendre na parce que parce que ñun maintenant c'est nous dans nous ñun ñëpp xamante nañ comprendre na mais moom mu ñëw nekk ngaaxa ñëw naan da siy dugg yow nga ne doom maintenant yow oh berti nga ma nax berti nga ma quoi am naa lu ma metti te incha allah rabbi gaamal la sum waay yëpp kilifay réew mi nañ koy yëg parce que kilifay réew mi nañ mu boo ay ca lif ñu dugg ah, ci beneen actualité ay ca vous êtes sur 313 ah. euh, euh, moom la ñu dalal tentative d'assassinat la doon wax am na ñu mu ci tudd waaye boobu it ñu bàyyi téléspectateurs yi wala internautes yi jugeel ñoom ñi nga xamante ne ñoom lay wax